Pape Djibril Fall moo ñu waat après ban Pape Djibril moo tax ma la man Pape Djibril bi ma xamoon ak bi may gis nii wax dëgg yàlla bokkatul. te tiit naa loolu si ay mbiram par rapport ak ni muy doxee. sànq tamit am na question bu ma posé woon Maty Sarr Niang mhm. gis nañu ne que le siège de Taxawu dañ ko saccagé sànni fa ay cocktail molotov sànq ñu gis ki nga xamante ne moom mooy xalifa sàll yëkkati ay kàddu di lancer tamit un message aux acteurs politiques plus précisément à nos euh, autorités yow tamit bi nga gisee euh, mbir mi déjà am na ay vidéo yoo xamante ne mi ngi commencer viral mhm. ci wàllu boobu tamit euh, waaw gis naa gis naa vidéo yi wax dëgg yàlla di ko ñaawlu par rapport li nga xam ne am na siège taxawu Sénégal parce que wax dëgg yàlla dama gëm ne donc bataille politique bi bu fekkee ne ñi ko def dafa am ñu ñu àndal nañ ko yemale si mbedd mi mais nag dem fekk siège jàmbur quatre heures du matin nga dem nga attaqué ko dóor fa ay cocktail molotov taal ko donc loolu dañ koy ñaawlu wax dëgg yàlla parce que ña lu doolu la ñaan ci espace politique bi parce que bu ñu soñoon jàmm rek moom mooy am. Mhm. donc aussi tamit di rafetlu par rapport rek Khalifa Sall di discours bi nga xam ne def na ko. Mhm. donc li ma ci metti rek mooy li ñu ko jël ba ko féetalee benn camp comme si que waa kër Abbas Fall yi ñoom ñoo ko def. Mhm. te ba léegi gisuñu benn nit xam ne kii ci Abbas Fall la bokk. xam nga dafa am benn manipulation bu si am mooy dañu dañu dañu filmer ay carte d'identité ak euh, benn carte membre Pastef ak clé euh, clé voiture ñuy filmer naan donc ñëw leen ngeen jël si seen carte d'identité yi. yow caméra de surveillance amul fenn fu mu la wanee ne ñi doon toj loolu dugg nañ si biir CS bi. Mhm. si biti lañu toll di sànni ay cocktail Molotov di sànni xeer ba ni vidéo bi jeexee. léegi ku duggul si biir si biir si biir seesu euh, taxawu Sénégal. Mhm. nan la fay bàyyi ay carte ak ay ak ay ak ay kii ak ay clé de d'accord ak ay carte membre Pastef donc loolu aussi man loo rek laa siy ñaawlu mooy li nga xam ne jël nañ ko féetale ko benn camp te amul dara loo xamante ni moo leen di firnde ne camp boobu ñoom ñoo ko def donte ne nag démb ñoom attaqué nañ camp boobu waa camp boobu génn ñoom it am na ñu waxee ne dinañu fayu mais c'est pas forcément que ñoom ñoo ko def est-ce que du ay manipulation yoo xamante ni ñoom seen biir sax ñoom ñoo ko créé pour mettre à mal gars yi ak population bi. wax leen leen gis ngeen ñii donc ay nitu fitna lañ ñii dañuy ñëw di attaquer nit ñi moo tax loolu tamit nañ ci def très attention moo tax li Khalifa Sall wax ne moom ñi mu àndal mi ngi leen di wax ne leen bu leen fi nekk di fayantoo bu leen fi nekk di xeex moom li mu war a def moom en tant que ki nga xam moom moom moom kër googu noonu dina ko def mooy dem porter plainte mhm. pour man taxawaay boobu la war a am mais aussi nañu xam ne askanu Sénégal ñu ngi leen di xool mhm. te askan bi nag nelawuñu lépp luñ fiy def ñu ngi cee gis ñu ngi koy xam moo tax nañu moytu askan boobu dem ba jéppi leen par rapport ak seen discours ak seen taxawaay bi nga xam ne dañ koy am. mu nekkoon les appréciations yi nga xamante ne jëmale nañ ko euh, sur le début euh, de la campagne électorale waaye nag gis nañ ne que am na ay jàppante yu amoon démb euh, diggante militant yu Abbas Fall yi ak euh, Barthélemy Diaz ni ki noonu Abbas Fall yëkkati ay kàddu waaye gis nañ ne que rectifié na ko gannaaw bi waa Pastef génnewee li nga xamante ne moom mooy euh, ab bataaxal di dénoncer yenn ak yi siège Khalifa Sall yi tamit jotoon nañ ko saccagé ba moom jot na annoncé une plainte et d'après les vidéosurveillance ci wàllu boobu les autorités compétentes dinañu am. un chemin pour éclaircir li nga xamante ne moom mooy cette situation dañuy continuer ba tey ñu gis Ousmane Sarr le premier ministre Ousmane Sonko. Mhm. ci campagne bi nga xamante ne euh, si la nekk ni mu yëkkati ay kàddu di wax ne que am na benn dignitaire bu nekkoon dans l'ancien régime waxul nag tur trouvé nañu mille milliards ci compte waaw man de wax dëgg yàlla bi ma bi ma bi ma gisee loolu donc dama dama dama tuddaat yàlla. mille milliards Ousmane parce que mille milliards. ak mhm. ni mu bëree. nee la budget bu Sénégal mille milliards la muy budget bii paase. Mhm. de am na koo xamante nii maanaam septembre ba la jël xam nga loolu si loo xam ne ñu la loo xam ne sept la sept yi xam nga pour ñaata la. Mhm. pour dix huit millions d' habitants euh, sept mille sept yi ñu ne la am na kenn rek moom jël na benn bi moom maanaam loolu daf lay wan ne gars yi ni ñu nekk woon si réew mi di caxat caxatee alalu réew mi. Mhm. parce que nag bu fekkee benn Farba Ngom lañ dem këram man fa sàcc loo xamante nii tuuti moo ko manqué bu mat un milliard. mais kooku bu ñu la waxee denc na 1000 milliards doo ko weddi parce que euh, moins 2 milliards nga def ko sib saak si dëkk boo xam ne nit ñi jamono boobu noonu bu ñu xiifee du ñu lekk ñi nga xam ne ñoom nga dëkkal muy si côté Fouta bi ñu bëri mar mi ngi leen di rey. Mhm. dañu am problème mu réseau sax pour mën a woo seen mbokk yi dañu am problème mu courant pour mën a charger seen téléphone yi jamono boobu noonu yow ñuy sàcc sa sa kër loo xamante ni dee ko des mu mat un milliard ñu ne la tey jii nii koo xam ne géwélu président la woon. Mhm. aéroport boo fa demee am na fa deux hectares ñu ne la am na yeneen suuf yoo xam ne muy si littoral beeg yu demee noonu ñu ne la am na ay hectares yu dul jeex mhm. fan la ko jëlee yorul benn fonction boo xamante ni nii état moom moo ko jox du ministre du dara même bu nekkoon ministre sax salaire am ak li muy li muy am munu ko koo may ñu ne la kooku am na ay hectares ay suuf yu dul jeex mhm. mais loolu li muy wane mooy ñi fi nekkoon degré bi ñu tolloon ci wàllu caxat caxatee alalu askan bi ak def ko seen moomeelu bopp. mooy bu ñu lebee bu ñu demee lebe ji cinq mille milliards. Mhm. au lieu que ñu jël cinq mille milliards yooyu def ko ci askan bi quatre mille milliards yëpp dañ koy jël def ko seen poche mille milliards dañuy def ci askan bi te loolu moo jaaduwul moo tax man actuellement nii lépp lu lépp lu ñu wax c'est scandale yoo xam ne ñu fi nekkoon def nañ ko fi en tout cas man personnellement du ma bett parce que damay xam ne capable nañ def lu raw loolu noonu. d'accord capable nañ def lu ko yoo xam ne xamuñu fan la ko dugal dafa disparaître kooku bu ñu ma waxee am na 1000 def ko si compte du ma bett parce que damay gëm ne capable nañ def lu raw loolu noonu ñu def encore une fois. Ousmane Sarr comme ñu bëri ni ñu koy waxee le pouvoir doit avoir li nga xamante ne moom mooy la majorité pour mën a dugal introduire yenn loi ci biir assemblée bi euh, ñu gis ni tamit booba tey reddition des comptes bi suñuy autorités yi saa yu ñu génnee mhm. ñi ngi jëkkati ay kàddu jëmale ko si wàllu boobu donc tey ji askan wi tamit il faut que ñu jël en compte mhm. période bi nga xamante ne si lañ toll nii Babacar man ñett rek moo na a tax moo tax ma woteel Pastef mhm. mooy d'abord ñi nga xam ne dañu fi nekkoon sàcc alalu askan bi ñu woo leen si yoon ñu indiwaat xaalis boobu ba pare teg leen ay daan bu ko jëree ñu yóbbu leen ci prison bi dafa bokk ci benn. Mhm. li tax ma woteel parce mooy bépp ministre bu fi nekkoon sàcc alalu askan bi mooy nañ la woo teg la ci yoon. Mhm. ñaar mooy lu amnistie bi nga xamante ni nii mi ngi fii ci dëkk bi. te ko def actuellement di dox seen ay soxla te rey suñu ay doom plus de quatre-vingt-six personnes rey leen. Mhm. am ñoo xam ne dañu disparaître xamuñu dañoo dee xamuñu ñu ngi dund. jël ay nit tëj leen ci biir prison bi yàq ci ay liggéeyu nit tas ci ay famille ñooñu noonu man. dafa bokk ci li tax ma votel Pastef mhm. te ñu abrogé loi d'amnistie boobu pour ñooñu ñu man leen a woo ba woowaale seen njiit bi nekk fële di def ay campagne WhatsApp mu ñëw fii si réew bi pour que justice soit faite yoon def liggéeyam comprendre nga. Mhm. loolu dafa bokk si li nga xam ne moo taxoon askan bi woteel ñi fi nekk. d'accord te loolu man foofu laa mas a taxawee. Mhm. mooy dama gëm ne képp ku jël alalu askan bi dërëm bu man di doon lu mu tuuti tuuti dañ la war a woo yoon def liggéeyam ak koo mën a doon nag. d'accord moo xam ngay sëriñ moo xam ngay kii euh, homme politique moo xam ngay am d'affaires moo xam loo mën a doon dama ne la képp kuñ gis ne kii kat li mu yor nii askan bee ko moom te yor na ko te amewu ko si anam bu jaar yoon nan la woo ñu teg la si yoon ak koo mën a doon si dëkk bi. reddition des comptes bi kon. nekk na waaye reddition des comptes dama ne la xoolal. xoolal man dama dama bëgg sax gis nga gars yi bu ñu jëlee majorité assemblée nationale au lieu que ñu nekk fii di taxawal ay cour de la ay haute cour de la justice. Mm-hmm. man li ma bëgg mooy pôle euh, parquet financier bi fi nekk nii. nañ ko dooleel doole boo xamante ni nii. donc dafay man di woo ay ministre moo xam nga nekk en fonction moo xam nga jugee fi. nga xam ne dootul dootul assemblée sax boobaa dina ko xaw a dimbale tuuti mu wote loi boobu noonu. Mm-hmm. bépp ministre boo xam de nga fi loo fi war a def du ñu xaar naan dañuy dem assemblée pour ñu am majorité pour mën la topp mais dañ a topp si saa la war a wóolu nga indi dërëm boobu nga xam ne jël nga ko ci askan bi. parce que neexul tamit wax dégg yàlla yow ñu defal la façon teraanga bu nekk yow nekkoo woon dara. Mhm. ñun ñoo la jël nga ñëw di ñu saraxu ñu ñu ñu ñu jël la teg la ci bopp réew mi dugal la palais jox la ay oto jox la carburant jox la ñu lay toggal jox la ñu lay garde ba kenn du la du la mën a sànk. Mhm. lépp loo xam ne soxla nga ko ñu jox la ko gratuitement mhm. comprend nga. ba pare yow ndakate moment boobu ñu lay defal loolu yaa ngi ñuy trahir moment boobu yaa ngi jël suñu alal di ko caxat caxatee moment boobu yow ak say doom yéen yi ngi noosee li nga xamante ni ñun askan bi yëpp ñun ñoo ko bokkoon. yow ak say ministre yéen a ngi jël ay saag yu def ay milliards di ko pàccoo seen biir. Mm-hmm. mais loolu noonu yoon dafa war a def liggéeyam man loolu laa gëm tout simplement amul baale xoolal amul baale amul négocier amul ay non buñ jàppee diw tëj nit ñi dañuy wax xoolal gars yi gis nga bu buñ demee bay wax lool rek mhm. bay sóoraale lool rek nañu jàpp ne daanu nañ daanu nañ ñoom ba faaw te dootuñu jugati te buñ ko defee askan bi dinañ leen jépp ñu gis tamit euh, beneen sorti bi nga xamante ne euh, ma jàmbal Diagne mhm. amal na ko démb si émission bi di grand jury mu yëkkati ay kàddu wax sur la situation politique def le décryptage kàddu yi nga xamante ne euh, suñu njiitum réew jot na ko yëkkati mhm. évoqué l'affaire Samba Ndiaye waaye tamit mu ngi woo les autorités à ce que ñu jël yenn le dossiers teg ko ci kaw table bi ibbi ko ci wàll boobu tamit. waaw non xam nga wax dëgg loolu moom ubbi le dossier ci teg ko ci table loolu moom je pense ay wax la yoo xam ne xay na day wax pour anticiper rek mais xam na ne loolu moom alaakulli alim dina am. Mhm. xaw ma nag moom lan lay tiit ak lan lay lan lay daw di làqatu pour nekk député xëy na moom moo ko moom moo xam li tax muy dem di wuti immunité Ousmane Sonko démb mi ngi koy wax mii naa am na ñoo xam ne dañuy dem wuti ji immunité pour jàpp ne buñ ko amee donc dañuy rëcc si yenn affaires yi mais xamoo ne même boo amee immunité parlementaire. Mhm. même si jour bi mën nañ ko mën na mën na mën nañu euh, euh, dindi immunité parlementaire boobu noonu. parce que benn mbalaan mbalaanu kiir laay la rek. Mhm. mbalaan mi say moroomu député bu la neexee si journée bi ñu mbiri ko. Mhm. kon je pense que loolu moom wax bu yàqu la jërul wax ma jamal jaañ nag man wax dëgg yàlla souvent du ma sax sa war a taxaw ji si ay waxam parce que dafa nekk nit koo xamante ni nii toujours dafay dox ci ay manipulation ak ay mensonges mooy toujours di fexe nan lay fexe pour détourner sénégalais yi jàpp ne mën na manipuler nit ñi jàpp ne mën na dox ci xelu nit ñi ba def loo leen loo xam ne bëgguñ ko woon a def. Mhm. politicien la d'abord làqatuwul. mooy bañ na ko dafa dafa dem bokk ci ay liste kon na assumer politicien boobu mu doon li tax mu dem dugg ci ay liste di loo xamante ni parce que dafa bëgg a dem assemblée de pour taxawal askan bi de. Mhm. parce que bu bu dee taxawal askan bi yor na journal mën na taxawal askan bi am na nu a taxawalee askan bi parce que dafa bëgg li nga xam ne moom mooy immunité parce que dafa bëgg li nga xam ne mooy bu gars yi ñëwee bu ëllëgee bu ñu fi ñëwee ñoom ñu am majorité assemblée nationale gars yi duñ leen mën a topp si yoon. wax ñi loolu kese la. moo tax ay waxam souvent du ma si bëgg sawar wax dëgg yàlla man yàlla def na sax. ñu di wax ne bon c' est des contre-feux surtout ak ci actualité bi. toll non dama moom laa lay wax moo tax mm-hmm. may la c' est ne ñoom dañ koy def pour jaxase xelu nit ñi. Mm-hmm. souvent dañuy génn yoo xamante ni nga yaakaar ne ñii dañ ko gëm fekk ne gëmuñu ko mais li tax ñu koy def mooy pour jaxase nit ñi xelu nit ñi bu ko defee nit ñi am doute loolu moo tax ñu koy def mais loolu nag c'est peine perdue wax dëgg yàlla pour man askanu Sénégal moment bi mu toll nii dafa am benn maturité boo xamante ni nii pour politicien wala journaliste nax ko du yomb parce que nee naa la gars li ñuy wax mhm. bala ñuy daaneel booy bu ndaw mooy dem indi archive yëpp teg wax la li nga fi defoon ak wax la say jaar jaar ak li li nga si pour wax ko très bien. moo tax ma ne nii wax dëgg yàlla am na yoo xam ne buñ ñu koy def dañuy sonal seen bopp rek nit ñi moom yeewu nañ te xam nañ fan la ñuy taxaw. beneen euh, actualité tamit boo xamante ne ñu ngi koy topp boobu ba tey mm-hmm. muy le cas de Ameth Ndoye nekk chroniqueur à la Sen TV mm-hmm. lu ñu koy toppee jamono ji nag mooy faux usage de faux. gannaaw ba mu euh, jàkkaarloowee ak les enquêteurs ñi ngi koy laaj permis am boobu ba tey indiwu ko donc mu waral tamit euh, tey yoon dal si kawam si wàll boobu tamit ban jàngat nga siy def. waaw xam nga Ameth Ndoye wax dëgg yàlla pour man euh, moom dafa war a sant yàlla. li tax moo mooy parce que gendarme yi nga xam ne ñoom ñoo ko jàpp. Mhm. bu leen neexoon ñu jàppoon ko bu yàgg. parce que bu fekkee da def accident nga fiir benn benn borom moto jakarta mhm. gendarme yi jàpp nga war leen benn attestation. Mhm. ñu ne la ana permis bi ngay leen permi bi ngi Dakar ñun ñu may la temps nag ne demal nga jëli permis bi. Mhm. yow nga dem au lieu que nga jëli ko ñibbi ñibbisiwaat mais nga dem presque euh, six jours wala sept sept jours nga nekk ci dëkk bi di taxawaalu. ñoom ñu xëy xëy gis la ne yow yaa ngi def conférence de presse ñu ñëw xaar la fi ngay defee conférence de presse bunt bi parce que mënoon nañ dugg ci biir ñëw yàq conférence de presse jël la mais dañu toog ci bunt bi di la xaar ba nga génn. Mhm. nga génn ñu ne la coppet yóbbu comprendre nga. Mhm. wax la la yow léegi. permis bi anamu ba pare erreur bi ñu def mooy Cheikh Yérim Seck toog def conférence de presse di layal Ameth Ndoye naan Ameth Ndoye mhm. gendarme li ñu ko def du yoon ak ay dañoo dem retirer permis am ci li nga xam ne mooy base de données bi fekk ne Ameth Ndoye permis attestation bi nga xam ne yoroon na ko très grave ci wàllu merci bi nga xam ne yoroon na ko permis jàmbur la parce que n'a pas accès au fichier administratif ci wàllu boobu permis jàmbur la dem attestation boobu la yor te loolu sax dégg naa ne ki nga xam ne moom moom permis bi. waaw porté na plainte Ameth Ndoye. ko à peu près contre plainte contre X. X bi mooy kat mooy gendarme wala policier bi nga xam ne. Mhm. moom moo defar plainte euh, attestation boobu noonu te loolu dañ ko war a topp. Mhm. ñu xam ban policier ko def ñu teg ko si yoon parce que policier boobu noonu. Mhm. du cas Ameth Ndoye kese mais bul xam ñaata nit la ko def si dëkk bi. mooy yow nga yor sa permis di dawal naka yow sa moom si dëkk bi loolu est-ce loolu la moo tax ñu koy toppee mooy dafa yor permis boo attestation boo xam ne permis bi moomu ko dafa dem teg di ak benn waay benn police wala benn gendarmerie mu mu mu defal ko ko mu si dawalee oto moo tax Cheikh Yérim Seck sax dama gëmoon ne dañ ko waroon a convoqué moom par rapport ak li mu taxaw tuumaal li nga xam ne mooy gendarmerie national ba pare osé na day porter plainte contre la gendarmerie lan moo tax mu leen di porter plainte parce que li ñu def amen amen doy xam nga pour man yabaate foofu la foofu la toll mooy nit booy wax da ngay xam li ngay wax surtout les forces de l'ordre muy police wala gendarmerie. Mhm. mais taxaw ñuy def seen liggéey nga taxaw di leen tuumaal parce que xam nga ne yow kii ngay faral nii nekkul si yoon. nga taxaw di ko défendre si loo xam ne teewoo ko si benn base bu leer. léegi ni ñëpp dem ba découvrir que ne am na ndóoy mi que ndakate moom moo nekkul woon si dëgg. Mhm. xam nga ne nekkul woon si dëgg mais waxu ko. moo tax Cheikh Yérim boobu dañ ko waroon woo mu leeral loolu. waaw moo tax amendoo wax dëgg yàlla. Mhm. na def liggéeyam. na yoon def liggéeyam parce que moom moo def lu dul yoon benn euh, fiir nga nit mhm. ñaar yaa ngi dawal san permis ba pare permis bi nga yor attestation bi nga yor attestation du pour yow moomoo ko yow amoo sax permis bu nee base base de données bi yow fekkuñ fa sa permis mhm. mais après dëkk bi noonu lañ koy bàyyi parce que yow politicien nga parce que da ngay contre gouvernement bi fi nekk léegi yow lu la neex man ngaa def buñ la jàppee ñu ne non donc parce dafa am na ñoom ne damay xeex ak jomaay léegi man lépp lu ma def dagan na kenn waru ma jàpp bu ñu ma jàppee rek ma ne non c'est que dañ ma singale affaire politique la parce que li ma àndut ak ñoom mais dëkk bi nii lañ koy bàyyi après mu continuer nii quoi loolu jaaduwul dama ne la Ameth Ndoye na yoon def liggéeyam li mu laaj ñu def ko ci kawam man loolu laa gëm. ñu jeexalee ko rapidement avec euh, l'autre cas muy Bougane Gueye Dany en deux minutes rek gannaaw suba le 30 moom la war a jàkkaarloowaat ak euh, l'autorité compétente à quoi s'attendre réellement gis nañu suñu njiitum réew taskatu xibaar yi laaj ko boobu question indi na si tamit euh, euh, euh, kii li nga xamante ne moom mooy une appréciation mm-hmm. yow tamit ci sa analyse ci wàllu boobu noonu waaw man de wax dëgg yàlla comme xëy na yu bëree bëri mën nañ see bañ a waxaat. parce que wax nañ ko fi waxaat ko fi. Mhm. mais damay ñëw rek par rapport ak yi nga xam ne mën na ko ci fekk. parce que barki démb maa ngi lay wax ne la bu ñu toppee li nga xam ne mooy article bu code pénal. Mhm. Euh, article boobu dañ képp koo xam dañ toppee si ay chef de chef d'accusation comme comme comme rébellion. Mhm. buñ la si àttee ba pare. donc juge bi la àttee am na droit